waaw salaamaaleykum sama gaay ma maa ngi leen ziar di len bëggee ma ngi tuddu Issa Cissé bergerie bi mi nek euh, pigine en face Sénélec bi dendata euh, Stade alsan djugo bi wa bergerie bi wa keur Modou mbalo sek la numéro téléphone 77 435 90 06. sama numéro ñi ngi ci bergerie Modou mbalo sek sama numéro 77 795 46 47 wa bo moy numéro yi quoi. waaw tey maa ngi indi euh, benn jeune mâle kooku doomu Arthur la roi Arthur roi Arthur moom kenn dootu ko présenté ci élevage bi maa ngi ko indi Ama Balde la tudd waaw maa ngi indi tamit euh, benn sëtu may sawadd kooku mot Arthur ñoo bokk yaay waaw ñaari mâle yooyu kooku espoir la ñoom ñaar la indi tey exposé leen hmm, at femelle ne tey yàgg naa liggéey mu indi leen bu fekkee espoir bi 16 mois la am bu fekkee Ama Baldé la mi am 11 mois kooku doomu roi Arthur la roi Arthur moom li may waxaat dama koy waxaat dootu ma ko présenté ci élevage waaw femelle bi maa ngi indi Bousso kii Bousso la moom boo xoolee ñaari ko ñaari côté yëpp gàndi la maa ngi indi tamit euh, Nogoy kii Nogoy la kii sët la ci Maysa Wade nekk tamit euh, sët ci Galaxy bu jagatu Touré kii Salaan la tudd kii sët la si Saalum Saalum kii doomu maire la avenir la waaw non loolu sant yàlla yaatuwaay bi ak taar bi daf ci am solo parce que technopole bi malgré moo ñu gën a jege mais damay wax ne tey fii moo gën parce que fii moo ëpp visibilité moo gën a baax te loolu dafa baax ci foire bi man sincèrement parle fii dama ci kontaan damay ñaan yàlla chaque at ñu koy féetee fii daal macha allah. waaw non xam nga xontu xar yi moom éleveur yëpp a koy jooy seer na parce que pour man aliment bi si réew réewam lañ koy defaree du lu ñuy importer. war na mën a yomb ba éleveurs yëpp di si seen bopp ngooñ mi tamit pareil fi lañ koy bayee kon war na mën a gën a yomb parce que loolu suñ ko defoon tamit dañ gën a jàppale éleveurs yi parce que xont bi xam nga quoi kon diis dafa seer waaw yi day nekk loo xam te ne tamit sant yàlla la ñëpp daal at képp ku xam ne yaa ngi nekk waaw waaw si effectivement loolu tamit lu nekk la parce que boo xoolee gars yi comme ku mel ni man tey sama berger am na yoo xam te ne tey fi fa nekk di liggéey kenn moo moo nekkat ni mais am na koo ñoo xam te ne tey nekkuñu fi xam nga parce que maa ngi leen bàyyi foofu tey boo xoolee bergerie yi da ngay bergerie yoo xam te ne dañuy jël ay six personnes xam nga yoo xam te ne dañuy nekk si bergerie te ay emplois yoo xam bi war na mën a jàppale éleveur que ñoom tamit dañuy ay xale yoo xam te tey mënoon nañ dem nekk ci leneen tey ñu jël leen xiir leen ci lii parce que lii jaamu yàlla la ñu xiir leen ci ñu nekk ci comprendre nga kon damay wax ne état bi war na ci mën a dugal loxoom waaw parce que élevage dafa métti. waaw sama bergerie man trois personnes ñooñu nekk ci man waaw sama ñaari frère at rijaal mi tey ñoo nekk ci man waaw ñoom ñoo nekk ci man mais am na bergerie yoo xam ne da nga fay dugg gis ay dix personnes di fa liggéeyee te loolu man pour ma dama wax ne jàppale jeunesse bi la daal xam nga éleveur ñun moom ñu ngi bay suñu waar mais état bi ñoo desee béy seen waar waaw. waaw waaw parce que côté boobu li nga ciy wax dama si dama si sawar a tontu parce que éleveur boo leen jàppalee yaakaar naa ne comme dëkk yi nga xam te ne dañuy indi xar di ko dugal Sénégal éleveurs yi am nañ fulla am nañ jom te bëgg nañ seen réew parce que li damay wax ne ku bëggul sa doo ko def ku bëggul sa doo ko def kon ñoom dañ ci war a jàpp jàppale éleveurs yi jàppale leen baax jox leen seen gëdd jox leen seen wàccuwaay waaw noo côté boobu moom xam nga même fi ma damay waxaat ci loolu ñoom war nañ ci mën di jël matuwaay parce que dëkk bi dafa xaw a manque sécurité même bu lu si côté élévage xaw a manque sécurité dëkk dafa am sécurité parce que euh, ay xar parce que xar yi ay centaine de millions la ñuy jar tey benn mbote rek day juddu tey ñu laaj la si da ngay gis xale bu juddu fi mu bokk nga gis taxaw ñu laaj la si 10 millions benn xar rek xam nga wala benn xar di jar lu ëpp 10 millions wala mbote 3 millions 4 millions xam nga nga yor ci benn nombre boo xam te ne macha allah xam nga tey un jour nii tey gaa yi dugg fa raxasee xar xam nga mais après dañ lay yàqal lu bari loo xam te ne parce que am na ñu mu daal ay éleveurs yu mu dal te loolu rafetlu ñu ko kon loolu état war na si mën a jug xam nga gars yi ñu gën leen jàppale ci tous les côtés jàppale si plan yëpp daal. waaw foire moom yàgg naa dem ci foire waaw mënu lim quoi ku lim da ngay mais foire moom yàgg naa dem ci foire yi parce que yàgg nañ ci élevage tamit waaw. bi bokk na ci waaw non foire bi moom sama foire la parce que Pikine laa dëkk doomu Pikine laa daaw sama euh, espoir moo jëloon pay roi artiste dama wax ne dootu dootuma ko présenté ti catégorie boobu espoir moo jëloon pay waaw kon foire bi dama wax ne Pikine moom damay saf saf parce que Pikine fii laa dëkk lépp luy xewle bu ma jiitu kenn du ma jiitu. waaw damay bokk suñu jur bu soobee suñu borom mooy ci organisation lépp. Hmm. am naa beneen métier bu dul càmm. métier boobu boo du ma yàqal dara parce que euh, damay wax ne élevage amour la passion ci man dafa nekk loo xam ne depuis que ba may nekk xale dama ko mus a bëgg. te même bu ma fi nekkul ñi ma dénk xar ñi dañ nekk nit ñoo xam te ne ñu mat a dénk lañ parce que xar boo leen xoolee entretien bi di nga xam ne ñi xam te ne tey moom nga ko dénk ñu mat a dénk lañ te li am solo booy dénk dénkal ku mat dénk moo tax fu mu mënti nekk rek suma xel day dal waaw mais am naa beneen business bu may def bu waaw non xar moom demee ne aw ma ma si naqadi parce que xar nekk na loo xam te ne damay ñëwaat ci loolu parce que bi ma nekkee xale dama ñëw fekk sama ñaari côté euh, famille muy sama côté papa sama côté yaay seen waajur yi di yar xar bi ma màggee tey xëy na loolu moom moo ma fekk si loolu xam nga ma màgg ci loolu yàlla suñu borom def euh, amour boobu noonu ci bi may nekk xale laa ko am moo tax xar yi jaral nañu loolu soxna yi léeg-léeg sax damay dégg xar la gënal kii mais damay xam ne loolu lu barkeel la parce que yàlla suñu borom bu la joxee mbir waaw da nga ciy waslu ak daal waaw ba ñoom ëllëg doo leen laa laaq waaw parce que looy yeew moom war nga ko mën a toppatoo boo ko mënu toppatoo nag bàyyi ko mu dem wala nga jox ko mën a yor waaw non càmm moom li ma ci xam nga li ma ciy naqari léeg-léeg dinaa koy faral di wax parce benn bi état bi na jàppale gars yi waaw na jàppale gars yi parce que loolu am solo la beneen bi tamit euh, li may xarak nit bu ñëwee indi ay millions am taxaw na day investir aduna lu ne da nga koo xool sa bopp bu ñëw bu mu ñëw ci yow nga ne kii xamul nga jox ko loo xam te ne bu doon yow la doo ko jënd waaw loolu c'est très important damay sawar sa saa bu ñu ma laajee yéen questions yi ma wax ci loolu képp ku ñëw di investir xamaloonu am ay million am ñëw di jind jox ko loo xam te ne yow bu doon yow la comprendre nga loolu nga loolu ngay jënd man loolu laa gëm daal waaw sama kàddu bu gudd mujj man yeen maa ngi leen di sant avant tout waaw di leen ñaanal li yàlla na dem ba gën a yaatu nekk télé maa ngi leen di sant bu baax di sant sama mbokk éleveur yëpp di gërëm ñëpp di ñaan tamit foire bi feet la xam ñun ñëpp benn lañ ñu ñaan yàlla yàlla duñu may wér ñu koy feete chaque at ci jàmm daal éleveur yëpp benn la ñun ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk bay di ñaanal ñëpp yàlla xewal sutura ku ci nekk li nga bëgg mu nekk réussite sa aduna daal waaw loolu daal laay ñaan. man maa ngi tudd Cheikh Rijal Ndiaye. ñu gën ma xamee ci Rijaal Ndiaye ci càmm gi man nekk fii ci bergerie Modou Mballo Seck waa kër Modou Mballo Seck ku ne Modou Mballo Seck nag ne champion mag bi fii la nekk mi roi Arthur. waaw pour man toppatoo bi mettiwul pour man da ngay bëgg ba pare mbir soo ci dugg soo ko bëggee rek pour man toppatoo bi du metti parce que ñii pour man jaamu yàlla la daal hmm, surtout. ci toppatoo bi bànneex bu ma ci am mooy ku ma nekkal surtout premièrement du lu ma nekk ak moom la damaa comprendre jox ma sama cër respecté ma maa ngi koy wax sànq rek. parce que nit ki soo ko joxee cër respecté ko yaakaar naa ne lépp rek war nga koo mën a am ci moom su ma jumul bët su rek mooy lool waaw. lu ma gën a marqué ci moom mooy grand bi soo xoolee moom day def social si yaayam sax laay njëkkee ñu ko tudd. mais ñoom ay nitu social la moo tax ma mën a nekk ak ñoom ñoom tamit ñu yor maanaam seen kër sax jàppee ma ko kër nee naa daara la ci biir Pikine lu may wax xam nañ ko bu baax daara la ci biir Pikine ku ne maire na koy sekk moom xam ne moom maanaam kër gi daara daal moo tax grand bi neex nekkal mi isa hmm. neex a nekkal quoi. waaw suma yeneen moroom yi kër gi daara rek daara moom dina am jëwriñ dina am ndongo xam nga am ñu ndaw ñi. xam nga affaire yi lu ma la wax rek maanaam tarbiyu la rek waaw te loo rek dinga nga ko di nga a soo tarbiyu di nga mës a tari benn jour soo taree di nga maanaam ñëpp dina na daali daal waa dinañ ko jàppale dinañ ko conseillé parce que soo xamee ni bergerie Modou Mballo sek Froid Arthur nek moom partage rek la xam éleveurs yu may wax xam nañ ko bu baax partage la xam fu xar di jaree deux million soo ñëwee dina la ko wàññi te dina partage ak yow bëgg maanaam laadum bii progéniture bi maanaam mu law ñu partagé ko parce que élevage égal partage mhm. moom nag moom lay def quoi macha allah. Mhm.